bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyuwaat bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp bokki dëkkandooyu Tuubaa yëpp di jotliwaat nuyóob samay kilifa ni ma ko baaxoo defee rawaat na bu may soobu ci liggéey bii يبيك سام مامر المنطقة مين سرين توبا مام دكبي دار سام بسيط مام سنجاب لو خادر مين سنو جورين تي لجي ماجل جي أك لجي سرين توبا يو باري إكو سنجاب لو خادر دفلو مام سن جورين دين لو يبوا جارات سنجاب جام بفال مجيت خلف مي خلف سنجاب الباي فالي دون لب نالير لتام واخد نيو فيم جوري ما ينيو بيجيم جبوك تالب يب مجيت الكلفة يجي نيو ak jëwri yi ak ñeen baaxoo ànd liggéeyu mbale mi ñëpp ñoo xam ne kàddu yi soññee ci mbale mi rek la jëm mbale mi waxtu wu ne bu ñu koy soññee dañ koy dellowaat ci ginnaaw ci ndigal la nam nu dikkale woon suñ Cheikh Mamadou Lamine Bara joxe suñ Muntaxa ndigal ne ko dama bëgg ñu setal dëkk bi bala gani Serigne Touba yi ñëw ñu Muntaxa bi mu egsee ci kër ga mu ne ma suñ Bara jox na ma ndigal loo xam ne joxaat naa la ko na nga dem fa ñuy nase màggal gi ñu ñu la booleel ngeen taxaw seetu dëkk bi te nanga dem ci sëñ Cheikh jëm Fall mi jiite njabootu Cheikh yëpp nga wax ko ma defee ko noonu ci at mooma sëñ Mountakha moo taxawul boppam mbale mi di xëy di yandu ci kër sëñ Touba gii ba tàkkusaan ñu def liggéey boobu ci toll juróom-ñetti fan lépp àgg ca déwén sa ba la Mamadou Lamine Bara waxee sëñ Mountakha ne ko màggal gi na la ko sëñ Basiirum sëñ Abdu Xaadir taxawul ndax liggéey bi daaw sonn nga ci ci metti na ci mag sëñ Basiirum sëñ Abdu Xaadir waxoon sëñ Muntaxaa ne ko damaa bëgg nga wotal ma ci say jëwriñ ñoo xam ne damay ànd ak ñoom liggéey bi sëñ Muntaxaa boole nu ne ma naa bokk ci ñi ànd ak sëñ Saabas liggéey bi sëñ Saabas ne la nga féete woon ci liggéey bi daaw dara ëpp ko ci solo kon na nga ca féetewaat te mooy seetal dëkk bi ma ne ko kon li may ñaan rek ñama ko àndaloon taxaw ko bam liggéey bi mel na wala mel dama bëggoon ñu maye ma ma àndaat ñoom ba ma ko àndi ñoom dina mën a sama xel dina ma àndaat ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo mu mayoon ma loolee te ñama ko àndaloon nag gëj jiitu woon mooy Baay Faal yi sëñ saa jëmb waaye waxtu woon damay wax ne bu ñu waxee sëñ Cheikh Jëmb wax Baye Fall yëpp ak taalibe Serigne ndax noo bokk fu nekk bokk fun jëm bokk ñu doxe kon noo bokk lépp liggéey Serigne Touba bu nit noo ko baaxoo ànd kon lii noon rek lañ koy waxewaat noonu lañ koy doxewaat àndat ko bokk kilifa yëpp ba àndat ko bokk yëpp ak kilifa yëpp kon nuy soññewaat nag war a jubluwaat ci liggéey bi liggéey bi nag jekk nii la daan demee ndax benn panu safar lañ ko daan tàmbali waaye bu ñu masaan weesu bisu Ashura bi ci lañuy tàmbali réunion ñooy ak soññe yi ginnaaw bu ñu diisoo kilifa yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci kilifa yi diisoo waat kilifa yi ndigal noo ko jëlee ci suñ Muntaxa ak suñ Saabas jokkowaat ak kilifa yi mooy tàmbali suñ saa jëmb jokkoo na ma moom dem naa fa léegi jot na ndigal foofu yëpp woote na ab ñoo démb jëwriñ yëpp ñëw nañ jot lewaat naa ndigal li ngir ñu ànd waajalaat liggéey bi ñu ñiñ ko daan àndal nag mu nga tàmbalee ci ñi jiite mbooloo yi ci dëkk bi ak li ñuy wax ay chef de zone dëkk bi ñu seddale ko ay zone yoo xam ne soon bu nekk daa am ku fa nekkal liggéey bi ak ñi jiite daayira yi ak ñi jiite benn yi ak waaw maire bi ak ñëpp woo naa leen démb waxtaan naa nañ tàmbaliwaat nañ sóobu nañ ngir waajal liggéey bi nii nag nañ ko daan defee bu ko defee mu jottali ba ñëpp yëg ni ñu ngi waajal liggéey bi ba ba ci biir dëkkub Tuubaa ak biir réew mi ak bitim réew fay man noo mën a jàppee ci liggéey bi nga jàppee ni ci noonu bu dee waa biir Tuubaa mi ngi tàmbalee ci borom oto yi tàmbalee ci regroupement benn dëkk bi noonu la ko daan defee ki jiite groupement chauffeur yi ñu wax ak ñi moom oto yi ñuy déggoo bañ jox ma oto yi boobee buñ ci àggee ba liggéey bi àgg lañ ci daan dolli mooy maire bi am na wér gu ñu ci daan féeti gu wér rawat lu jëm ci gasoil bi état bi lañ ci daan jàppee dafa daan jaar ci ministère ba jaar UGC seen coordonnateur ñëw yabal ndawam yi nekk fii lañ war a jàppe lépp jàpp ci at mooy noonu lañ ko doon defee noonu rek lañ ko dinañ ko séentuwaat ni lañ leen tàlleel loxo di leen waaj dégluwaat bu ko defee nag ñi war a liggéey liggéey bi jëkk bi nag mooy ñu jiite mbooloo yi nga xam ne mbooloo yi nag mooy ñii génn di setal ñi ko àndal mooy ñu leen taxaw mooy chef de yi bu ñàppee oto yi nañ ko daan defee oto yi ñëw ñu jox Baay Faal yi jox daayira yi lii jox zone yi yii ñun ñëpp génn ñu bale dëkk bi noonu laa bëgg ñu def waat niñ ko daan waxee it dañ koy gën a xam di ko gën a façon ba muy gën a yomb noonu la doon demee daanañ ko def ci juróom-ñetti fan juróomi juróom-benn fan at yëpp benn bis lañ mbale mi ak tonni bi doon ñaari fan lépp di ñetti fan ñu bayaali bàq yi ci biir ñetti fan yi ñeenteel ba ñëwee ko ren nag dolli nañu liggéey bi dolli lu ci ab sëkk sëkk boobu itam ñoo ngi xalaat ne faawum lu mu gàtt gàtt jël ñaari fan ak benn dëkk bi yëpp ak oto yi ñàpp yëpp mu xalaat ne kon ci biir ñetti fan yi bu dëkk bi setee dañu am ñaari fan yoo xam ne oto yëpp dañuy dem ci dëkk bi ma téeméeri oto nangam buñ dee xëy di sarse ba ngoon di sotti danañ fi def luñ man a xam donte néewuñu dëkk bépp mën na sa ko setal ndax dëkk bépp daa yaatu te fépp ndox te day bari foo xam ne boo ko sëkkeetee nga ngëccoo ko daanaka la ngay seet du am njëriñ te bokk nga ca it bokk nga ca ngay sëkk ko tey bu ci suba saa mu tawaat ndox ma ñëwaat waaye nag dañuy def liñ man lépp suñ kam kàttan rek te lépp nu fas yéene liggéeyal sëriñ bi sellal ko dëkkam bi setal ko dëkkam bi wàññi jaaxle dëkkan ñi fi dëkk àggale yéene sëriñ bi loolu rek lañ ci façon te moom lañ ci bi moom lañ ci sooboo noonu lañ koy doxee bokki taale bi yi ma bokkal taxaw gi itam ginnaaw bu ma leen sante jottali seenu taxawaay bu rafet noo ko ànd waroon nañoo bokk jotaay bu soññee bii dañoo jàpp ne ci beneen liggéey met mën a ci beneen liggéey fii waaye noo koy ànd ci biir ànd gi nag démb rek tase nan am na suñ ndey daara joo xam ne bu soxna su Mbàkke mooy mi ngi suñ kanam jëwri ñi nga xam ne mooy ñu topp ci man sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Murtala Seex ñu dem na ñoom ñoom ñëpp démb ñu ngi fi woon kon léegi nag nañ ma euh, jéggal mënuma lim ñëpp waaye nañ xam ne kenn ku nekk fa nga ci daan jàppee ak na nga ci nekkoon noonu rek la kenn ku ne ña nga daan soññ na nga leen soññ na nga leen wax na kenn ku ne loo daan jot na nga ko jottali ñu jiite mbooloo yi népp nu mu daan deme daal daan demewaat ba réunion yi bu ñu ko waree defaat bu ñu waree wax ci rajo yi bu ñu waree yebal mbooloo yi bu ñu waree tàmbali liggéey bi fu ñu waree yóbbu oto yi fu ñu waree yóbbu xéwal yi lépp non nan ko daan nase nan ko nasewaat xanaa day yokk suñu yitte rek fetli suñu laxasaay ndax mu gën a yomb maa ngi soññ ñëpp di déglu di nekk ñëpp di tàllal ñoxol ñëpp bëgg na ànd ko di ñaan nag ci barke bi sëriñ Touba su borom bàyyil nu sëriñ Mountakha wéral na ko bàyyil na ko fi waaye nag ñeen daan saxal liggéey bi kenn tam kenn ku ne maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm ak wér jëli fi mbas mi defal nu yokk defal nu xéewal ba kenn ku ne noo ci bëgg a doxee nga mën ko ñaa doxee ba liggéey bi di gën a yomb liggéey bi gën a yomb suñu mbir yëpp di gën a yomb tey gal rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ab tàmbali la buñ bañ yëgle na liggéey baa ngi ñëw li ci des nag ci àggee dañ ko gën a wax jàpp nañ nag benn paro safar bi ñu ko jàpp def juróom-ñeenti fan ci weeru septembre non waaye nag bu gën a jege dañ gën a génne date bi ba mu gën a leer réunion yi ñu war danañ ko waxaat noo ngi ànd ak sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.